ñu ñëw réew nit ñi di couvre-feu ñuy daa illa en plein couvre-feu non am ni dinaa ñoo réew tot rek voyez, salaamaaleykum, ça commence comme ça. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Personne ne veut de ça. Kenn bëggul lii. Eh, noonu boog bay bu ragal lool

ñu ñëw réew nit ñi di couvre-feu ñuy laa ilaa en plein couvre-feu non